سلمت بجاه المنتقى من تسلسل خليما له لمولاي منصفا سلمت بجاه المنتقى من تسلسل خليما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 mbokk yi noo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di leen baalu xàq ci weeru mag yi ñu tàbbi di weeru ramadaan te ñaan yàlla boole ni nangul te jéggal nu te mënu taw feexul nu màngi weer wi na mu ko bëggee te mu nangul ni lépp ci ak mbaaxam nu bëgg ñëw ak yéen nag ci xadis yi nga xam ne at yi tegaloo yëpp rek daanañ ko ànd mooy bis bu ne mu jël rek ab xadis ci xadisu ci axadis yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko leeral ko ndax man cee jànge man caa jariñoo bëgg a ñëw ak yéen nag ci xadis yooyu nga xam ne noonu lañ ko daa defee tàmbali ci bis bu njëkk bi ba weer yu mat bis bu ne rek ab xadis ñëw bu soobee yàlla at mee nag weesu moom dañoo jëloon rek téerab Riyaadu Saalixiin tàmbali woon baabul xawf teg ca baabul rajaa ci baabul jam bayn al xawfi war rajaa ñu bëgg sësale nag bunt bu ci sës rek muy baabu fàddalil bukaa dañoo bëgg nag bunt bu ne buñ ci jëlee ñaari xadiis wala ñett rek daal di jàll ci beneen bunt ndax bunt bu mu indi rek xadiis yi dañuy xaw a nuroo moo tax xadiis yi daanaka ñooy bokk max na moo tax kon lu bëgg a jël rek bunt bu ne buñ ci jëlee ñaari xadis wala ñett jàll ca beneen bunt ci kaw loolu bunt bu ne dañuy xool xadis yi ci gën a mat a jàpp nu indi ko door a jàll na ci beneen bunt kon di ñaan ci barkeb sëriñ bi yàlla def ko muy njariñ rek loo xam ne ñun ñëpp danañ ci bokk njariñ njariñoo te yàlla defal na ak dégg gu طوب كون حادث مجاك في موم دي نجاك في بنت برك بابو فضل البكاء لي موي بنت غنيال جوي من خشية الله انجري رغل يالا وشا وخان اك صوب يليه جم شموم بنت بابو دي بغا جانغالي غنيال جوي ngir ragal yàlla ak bëgg yàlla loolu nag lu am solo la دينجك القرآن جي قال الله تعالى ويخرون دانا نيرت للأسخان نيال داجي سكين يا يبكون برمم دانا نجوي ويزيدهم تمولان دي دولي خشوعان أكرقل يالا لا يبو من سورة الإسراء سن برام داي نتالي أو نت لن تغني فكنا نين نيو موي نيغا خامني دانيو امون خام خام تي ديك الاسلام تي جامونو نديك يا jangon téré yu ñëk ya ñoo ñu na bu ñu déggee alxuraan rek dañu daal di xam ne lii wax yàlla ñu tiit tàmbalee daanu di rot di sujoot di jooy jooy yu métti bu ko defee nag alxuraan ji ñu dégg da leen di dolli ak ragal yàlla kon foofu rek mu nga indi rek ngëneelal jooy ngir waaroo ci alxuraan ak waaroo ci ragal yàlla وقال تعالى أفمن هذا الحديث ndax ngir bi la nettali taajabuna ngeen yéemu wa tadxakuuna te ngeen di ree wala tabukoon te du ngeen jooy loolu mi ngi surut naj mi suñu borom day wax di yedd yéefar yi ne leen yéen daal alxuraan ji yi nga xam ne moom ni mu ragloo laaye ni mu mettee ak na mu tiitlee bàyyi ko ci yàlla ngeen di ko dégg war a jooy defu leen ko di reetaan ak saboote dafa ñu ne kon alxuraan moom nit ki yu ko dégloo rek da koy fàttali yàlla mu tiit ngir màggu yàlla tàmbalee jooy ngir ragal yàlla ñaari laay yooyu rek lay indi foofu daal di tàmbali xadiis yi xadiis njëkk bi mooy wa an ibni radiyallahu anhu qaala wax na qaala wax na lii ñeel ma النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم نما اقرا جانغل عليه من القران القران قلت من يقول يا رسول الله يا ينتبي على بي اقرا ودنا جانغ عليك تشيو وعليك تشيو انزل لواتي القران قال من اني نك من احب دنا دما بغ ان اسمعه وشي ما من غيري شكو من فقرأت تما جانغ عليكم سورة النساء سورة النساء حتى جئت بما أغ إلى هذه الآية جمت بلا الآية تموي فكيف نكلا إذا جئنا نمدك من كل أمة تبب خير بشهيد تاج شارع وجئنا تنو ديك بك شهيدا نجاج شارع على هؤلاء تنيه قال من حسبك دوين الآن لقي فالتفت دما جستو إليه جمجمم فإذا عيناه أمر لمي نياري بدم تذرفان دان يطور دان يسوتك أي رنقن حديث بو متفقنا عليه لا عبد الله ابن مسعود صحابه بو مغلوان يالا كو يالا دولي گرم موم مو واخ ني صلى الله عليه وسلم دما واخون نما جانغال ما القران ما دغ jàngal dara ci alxuraan may dégg mu ne ko ah yow yonent bi yàlla bi naka laa lay jàngale alxuraan te ci yow mii la yàlla wàcc alxuraan loolu da koy laaj rek ngir yéemu ne yonent bi ne ko man kat dama ko bëgg a dégg ci kudul man daa bëgg nga jàng dama damaa bëgg a déglu alxuraan ci keneen abdullahi ibnu masud nee na ma tàmbalee jàng suratu nisa ba àgg ci laay bii فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة لول موي لاي ام ينفك بن سي سوره النساء سن بروم دي واخني نيت ني بو الليغي ناني ديف بو يالا اندي خيت ييب اندي نك يونت ان اندي يونت باغا خامني موم لا يوني وون سي خيت يا خمغو سن بروم يونت يونت يي باري باري باري يوني ci xeet yu bokkut léegi nag day indi xeet yëpp xeet bu ne mu indi yonente ba nga xam ne moom la yónni woon ca ñoom bu ko defee muy laaj yonente bi ndax ñii jottali woon ngeen la leen yónni woon ca ñoom yonente bu nekk nag daal di tontu ne ah, suñ boroom la nga nu digaloon kat nu jottali ko xeet yi jottal nañ leen ko ñoom ñoo gàntu rek waji inaa bi ka xalaa xawlay shahida daal ni Muhammad yow nag nu indi la yow mii nga war a seere sa xeet wii mais ne loolu nag na mu tiitloo ak na mu jàqloo mu tiis ci yonente bi ak na yonente bi mel ne ku janloo ak moom di jàkkaarloo ak moom Abdullahi Mas'ud nee mu ne ma doy na doy na doy na yemal foofu ma gis ne ay bëtam ma ngay ay ronkoñ mu tàmbalee jooy moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay da koy indi rek day indi xadis boobu rek ngir wane ne jooy ngir ragal yàlla ak mbiri àllaaxir la te tiislu ak jooy ngir diglu lu ama ama am solo la سلمت بجاه سلمت بجاه المنتقى من تسلسل خليما له عبدا بمولاي منصبا سلمت بجاه